بسم الإله ينقل tey nag ñu ñëwoon fas yéene am tuuti lu ñu bëgg a waxtaane ak mbokki àdduna yépp mu jëm ci wàllu réew mi ak dëkk bi yaakaar naa ñàkkul ñu ñu gisoon fii bu yàggul ci benn taxawaay bu ñu taxawee woon ci jamono yi ci ginnaaw ci xew-xew yi paase ñu meloon ni ku ànd ak Ousmane Sonko ci wàllu parti Pastef bi loolu amee jot nañ ci dégg sunu kàddu waaye kàddu yee ñu joxe woon fekkoon nañu am lu ñu nar waaye li tax ñu def ko mooy ñu waxtaanoon ak suñu kilifa bi ñu jàllee bi mu jàllee itam ah, kilifa yi ñu am ci dëkk bi yëpp waxtaan nañu ak ñoom ci lii ñuy bëgg a def ci lii ñuy bëgg a dugg xam naa néewaa lu ma koy def mais tey dama koy officiel ñëpp dégg muy ci engagement politique ci kenn fànn. muy taxaw tey pour jàppale président de la république Macky Sall teg ko fu leer ak fu wóor ci bi ñu waxtaanee ak suñuy kilifa waxtaan ak moom ba noppi ñu déglu ko mu wax li mu bëgg ci réew mi ak coppeeku gi mu nar rawatina jëmale ko ci ndaw ñi surtout nag Touba bi ñu waxtaanee dëppoo xalaat mu sàkku ci ñi. man ma bëgg ñu jàppale ko ma nangul ko ma waxtaan ci samay kilifa nangul ko ko بسم الإله ينقل